voilà suñu ay mbokk nañ mais xam nga rek yaa ma gën a xam dañuy xool lu ñu def rek. léegi ah, dañ négocier quoi <laughs> yaa ma gën a xam. incha allah kon yaakaar na ni gaari ñu gagné tey. non dañuy gagné incha allah. ok nag euh, coupe d'Afrique bi est ce que yaakaar na ni mën nañ ko jël tamit. non dañ koy jël parce que Sénégal c'est la meilleure équipe. ah waaw loolu dañ koy jël loolu dañ koy jël incha allah. Ah, kon naaj incha allah dañu xool loolu. jaay ak merci beaucoup. dinaa ni baa ñu fàttali sa tur s'il te plaît. Baye Talla Baye Talla alors Baye Talla noo xaatee match Sénégal bi tey xaat na Sénégal tey waaw oh. pourquoi pas. loolu yëpp ñaan yàlla Sénégal léegi sax baax. ñu ngi football pour l'instant ñu ngi gérer match bi waaw yàlla moo a li des rek. amiin premier de notre tour. ok mais sànq euh, premier match Sénégal yi premier match ah premier match seetaan naa ko kay seetaan naa match daal dafa dal sa xel daal dana sa xel ah, équipe bi Aliou Cissé liggéey na ko liggéey na def na lu ci waroon def lépp est-ce que nañ bàyyi lépp teg ko si loxo yàlla mu mayaat ñu suñu deuxième étoile incha allah kooku am nga yaakaar étoile bi ñëw quoi allah ñoo Inch'Allah. Voilà. Donc, alors, nous sommes avec monsieur Sané. Ok. Alors, nous avons un match de bataille avec le national Sénégal, de façon générale. Nous avons l'équipe. Qu'est-ce que nous avons sur Oui, on a une très belle équipe. Donc, euh, on a les joueurs qu'il faut, on a le coach qu'il faut. Et ah, jusque-là, il monde de très belles choses. Donc, là, pour ce match, c'est extrêmement important de prendre la première place. après, pour la suite, on est confiant. On pense qu'il peut réaliser de très belles choses. D'accord. Donc, vous pensez que le Sénégal pourra remporter cette Coupe d'Afrique une deuxième fois Bien sûr, c'est la, la meilleure équipe actuellement. il n'y a pas de crainte là-dessus. D'accord. Donc, j'espère euh, qu'ils ne vont pas nous décevoir. Ouais, mais, mais, Dominique moi qui c'est ça, vous avez fait la mais qui fait mon interview, quoi. mais yow wax ma wax ma dèjà yow na nga tudd. man Fama laa tudd. Fama Fama alors noo xaatee xam ah? rek. ndam rek ba yëg ko. Hmm. d' accord ndaga léegi Ndiaye mi nu ak euh, match bi. maa dox na wanteer instant yi. ah kontaan si suñu hmm. kon instant yi nii bagage dafa daal. carrément mais bagage ba mi na ràpp ak jàmm yàlla na lépp jeex. yow ku baax nga sa sañ sa rafet nga <laughs> merci Pape <laughs> ate match Sénégal ci première mi-temps bi bon je pense que gars yi sont pas encore euh, dans le match xaw ma la mais je pense que deuxième mi-temps bi gars dinañ ci nekk quoi mais la pour le moment bon jeu égal la quoi Guinée ñu ngi ñëw teg seen football Sénégal teg football am donc xaw nañu ñeme tuuti mais je pense deuxième mi-temps di dina am espace libéré wu tuuti waaw incha allah voilà d' accord kon daal premier mi-temps bi dama gis ni Sénégal mënoon na gën a football parce que dafa xaw a tëju daal loolu nga gis match bi non nga xam rek plus compétition yi di gën a dem joueurs yi di di gën a réservé wu pour phase finale parce que lii qualifié nañu ba pare donc jarul gars yi di ci reyante wala di ci def yenn effort yi mais bon xam deuxième mi-temps bu ñëwee moom dinañ baax ok mais est-ce que tu penses que le Sénégal gis nga a l'équipe nécessaire pour prendre une deuxième Coupe d'Afrique de suite est-ce que tu penses que Sénégal mën na ko jëlaat mais loolu yow boo koy xalaat sax yow dama laa war a mbéj <laughs> loolu waroo xalaat jamono ji ah, mais on est on est on est on est favori à mille pour cent tu vois on a une très belle équipe comme li ma doon wax rek Aliou Cissé mën na yow mais ceebu jën lay togg mu dem ba ci biir ceebu jën bi ceebu jën bi neexu ko mu def maafe maafe maafe su ko neexul mu def ko domaraate da koy def dëgg la moom voilà <laughs> kon daal kon dañu staan ba xool lu muy joxe ak ah, Bachir merci beaucoup Bachir dañ cee daal ba xool lu muy def kii moom moom daa rab ba sonn <laughs> ah, dafa rab ba sonn <laughs> Weuz Lo xam nga xam nga ñu ngi voilà duñ dajeeg moom ci kan bi mu réew camouflé mais Wezo déjà camouf camouf bi nga def bi tey jii instant yii nii pour lan la tey. bu doon bu doon bokk ci xew yi rek. bu doon ñëw ruubee yëngal. ah yow xam la. waaw waaw loolu ci la boo xam tey tamit dafa xawoon mbéy. waaw man man xam-xam ne aw ma problème yooyu noonu. man man maa yi lépp benn la man noonu laa koy dundee chaque jour ñoom pour seetaan match bi waaw. ok mais na nga xaatee match Sénégal bi tey la première mi taw waaw moom baaxul de pour man baax des na de pour man des na ko waaw man des na de. ah man waaw ah, des na pour man ñii dañuy dañuy défendre rek ñii kii euh, nu mu tuddati boobu Elimane Ndiaye moo yor fi ñu la ñu. waaw Elimane Ndiaye moo yor fi ñu la ñu ak boobu boobu sant Cissé. xam nga non Camara. Lamine Camara xam fi ñu la ñu d' accord mais est ce que nekkul parce que li tax Sénégal Sénégal dafa qualifié instant yi kon est ce que nekkul xam nga Aliou Cissé daa bëggoon tourner effectif bi noppal Lamine Camara ak yooyu noonu xam nga. loolu tax mu dugg loolu du raison loolu du raison champion champion ngay doon. Ah. monsieur gis euh, ci ndaanaan yëpp ci bépp xare ak bépp compétition bu mu mën a doon nga nekk titre champion. naan da ngay séddoo benn am yooyu gars yi da ngay gañe nag. Ah. dañ leen war a a dee. ok kon tegaat même phase bi. waaw waaw a sëkkal. waaw bii da nga rëy da nga seen interview bu ñu def seen benn jour ñu doon gàmm xamuñu dara. loolu du waxu sportif. waaw du wax sportif dañ leen war a duma ba ñuy bëgg a dee. dañ leen duma am nga yaakaar ni Sénégal mën a jiyaat coupe d'Afrique bi ren wala. waaw ah en tout cas yàlla daal gëm naa ni daal Guinée Équateur dëgër na trop Cap-Vert dëgër na donc ñooñu leen boo yëgee jomar na ak ñoom faa nga wane leneen lu dul lii quoi. voilà alors avec euh, madame. Adama Seck. Adama Seck Adama Seck wax ñu loo xalaat ci match Sénégal bi tey. ah match bi neex na de mais instant yi zéro zéro xamaguñu nu muy demee foogoon na ni Sénégal dina dugal avant mais bon gardons espoir. espoir ok mais de base da nga ñëwoon pour doxantu wala da nga ñëw pour bi. Ousmane Massi. ok kon yaa sa copine ngeen a ànd ah, gis naa seen contingent parce que jëlee ma équipe bi gis naa équipe bi waa IAM mais daf leen bii tudd pour waa IAM. mais mais mais mais Sénégal mooy réew match bi yéen. c'est espoir. Ah, allah merci beaucoup waay vous merci. waaw alors Alpha Alpha man Guinée Bissau. Guinée Bissau mais kan nga faral tey Sénégal wala Guinée Conakry. Sénégal. Sénégal ok kon yaa ngi ni Sénégal mooy gagné match bi tey. ah Sénégal mooy match bi wala Conakry ah. <laughs> mais koo faral yow koo faral. ah. moo gagné. Sénégal moo gagné. waaw léegi moo jël coupe d'Afrique bi. d'Afrique bi. Ah, déedéet ah ma baaraam moo loolu de. yow xamoo loolu. waaw koo yaakaar moo jël coupe d'Afrique bi kan nga yaakaar. ni moom moo jël coupe d'Afrique bi. Ah. Sénégal waaw <laughs> Sénégal yow xaritam bi moo ko jotee moom déggul wolof xaritam bi moo koy moo koy traduire yow traducteur baa ngi nii yow Sénégal nga yow man Sénégal la ah kon Sénégal nga faral yow waaw man kay Sénégal laa faral am naa si yaakaar tamit dañu indiwaat tamit coupe suñu dëkk ah yaakaar nga ko yaakaar naa ko nag yàlla am mais booy yi foog nga jàngal ko mu dégg wolof de parce que tamit mu ne Sénégal du dégg wolof de depuis daaw mu ngi ba léegi déggul wolof daaw booyam daaw booyam eh, booy nag booy foog nga dégg wolof de daaw ba ren mënoo dégg wolof lu loolu foog nga jàng wolof laa wax dégg nga beneen yoon bu ñu déggee wolof lay laax dégg nga aja nekk ci jàmm jaajëf baal ñu fàttali ñu sa tur ak sa sant s'il te plaît. man Dior laa tudd. noo xalaatee équipe nationale match bi tey noo xalaatee match bi. Ah, pour l'instant, on maintenant, mais bon, ñu ne nañ suñu bopp en fait parce que ay ay gaynde nañ duñu daw tôt ou tard moom xam nañ ni Sénégal day day battre record incha allah. kon am nga yaakaar ni Sénégal ren day jëlaat coupe d'Afrique bi. bu ça. sax. bu non lii du niveau tamit nag. du niveau de non ñun ak yeneen ñu du niveau waaye mais le Sénégal day jëlaat coupe d'Afrique bi comment ça se joue yow. man Sadio Mané la sama. Sadio Mané ñaata woon moom tax na jabar

mais na nga tudd baal fan sa tur si tur. Mohamed Cissé. Mohamed Cissé Mohamed Cissé noo xaajee match Sénégal bi tey. waaye xaas la rek kontaan nañ ci trop de buñ démarré moom dana ko góorgóorlu continuer ko rek incha allah dana baax buñ yàkkamte quoi. d'accord ah, tey nga yaakaar ni Sénégal moom am na équipe bu mu jëlaatee kan bi ren est-ce que. ah waaw am nañ ci yaakaar bu baax de. mën na ko jaay incha allah d' accord mais yow la ngay jaay nii gis nga ay ndaamaraas mais mais nu mu def mbaa mu ngi jarat mat. waaw mbaa nga ndànk rek. Euh, mais mais da koy wanteer si wanteer nga ko. non non wanteeru bu ñu. da nga ko war a wanteer Sénégal mooy fii. waaw ah, xam naa rek après bu mag bi jaaxee rek. mbuus ñaata mbuus ñaata. am na cinq am na mille francs. am na cinq am na mille francs. Ah, waaw cinq am mille francs cher na de. yow ah, ndaamaraas ba at la daan neex cent francs la doon jar de da doon daan neex cent francs la ndaamaraas daan jar. dégg nga waaw noonu la demee mais ma xam naa dama jël benn mbuus bi di ñaar la bi mbuus ndaw bi mille franc li téeméer laa ko jëndee de téeméer laa ko jëndee ah déet ah téeméer daal mbuus bi moom ko yaay seen baal yéen téeméer laa ko jëndee yaa ma ko téeméer rek looloo téeméer mais <laughs> ah, sama ko ne yaa ko jëndee waaye waaw tur bi incha allah rabi day ñëw incha allah. tur bi day ñëw ah. tur bi tur bi bi. ah tur tey tey. waa instant yi zéro zéro lañ defagum. mais mel nañ yaakaar pour incha allah rabi gagné match bi quoi. am nga yaakaar ne Sénégal day gagné match bi. waaw incha dina yaay tamit nangu ñoo bàyyi mais xam xam nga rek mooy loolu daal dañ koy liggéey incha allah rek. dina yaay moom war ñoo sax ñaan ak may mais nag war a góorgóorlu. si si wala wala gisoo loolu. si loolu demee sax ñu euh, génn ak euh, neuf points jël pay nga xam ne après gars yi dinañu mën a bàyyi xel dañu gën a yombal yoon bi quoi. voilà alors euh, fàttali ñu si. Aminata Ba. Aminata Ba. Sénégalaise ou guinéenne euh, Je suis euh, sénégalaise mais d'origine guinéenne. D'origine guinéenne. Ok, Et vous êtes pour quelle équipe aujourd'hui La bah, Guinée ou le Sénégal Moi je suis dans tous les deux en fait. Les deux équipes Ouais, vive Sénégal, vive Guinée, vive l'Afrique. D'accord, mais la victoire va partir à une seule équipe. Le Sénégal ou la Guinée Vous choisissez. J'aurais bien aimer que ça soit le Sénégal puisque moi je suis euh, sénégalaise primaire. Second eh, j'aime bien quand même les Sénégalais. J'aime euh, euh, les pouvoirs de la quoi, Donc, euh, spécialement Sadio Mané que j'admire et j'apprécie beaucoup. D'accord. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Sénégal à une équipe pour prendre une deuxième Coupe d'Afrique. Bien sûr. Bien sûr. Coupe d'Afrique. Bien sûr. Non, Merci beaucoup. Merci. c'est quoi ton nom déjà 7-7. C'est Ouais. D'accord. Et tu es malien, sénégalais Les deux, je suis malien, sénégalais. Malien, sénégalais ah. D'accord. Euh, tu es pour qui pour cette canne Tu es pour le Sénégal ou pour le Mali Bon, moi je suis plus pour le Mali, mais je suis pour le Sénégal aussi. D'accord. Donc tu penses que le Sénégal, il va remporter ce match déjà Oui, le Sénégal va remporter ce match. D'accord. Et euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, par exemple si le Mali devra affronter le Sénégal sera pour qui Je serai pour le Mali. Attention au Sénégal, attention, au Sénégal. Moi, je serai pour le Mali. On est avec le Mali, hein, mais avant moi, on est pour le Sénégal quand même. Mais le Mali d'abord avant tout. le Mali, on supporte le Sénégal aussi, hein, mais le Mali avant le Sénégal, voilà. On, a, on a une rage qui va nous faire aller trop loin cette là C'est ça, mon frère. Ah, quand même lu bari mérite cette coupe pour chacun son tour au Sénégal eh, eh, Assimi Goïta Assimi Goïta ou rien monsieur le président monsieur le président Macky Sall aussi ou rien on est ensemble c'est la famille Fatou la Fatou waaw alors Fatou loo xalaat ci match Sénégal bi tey ah kontaan rek dañoo kontaan parce que suñu lion yi ñooy ay jàmbaar lañ daal ñoom ñu ngi fubal ñu ngi fubal bu baax macha Allah kon ñi esa ñoo mu ne 1-0 mais est-ce que am nga yaakaar ñoom ñoo gagné match bi. bu baax yaakaar bu baax. dem nañ jaar coupe d'Afrique bi. Ah. incha allah. sa xarit bi waaw sa xarit bi loolu ngay wax. soxna si yow na nga tudd. mooy Fatima laa tudd. Ah, Fatima Fatima loo xaar ci match bi tey. lam rek. deux heures. deux heures nga gis. est-ce que yaa ngi Sénégal moo jaar coupe d'Afrique bi. xoolal lii. waaw maa ngi lay wax dama ko bi. man Elimane Ndiaye. Elimane Ndiaye. Elimane Ndiaye. <laughs> la fin de cette rencontre, le Sénégal s'impose 2 buts à 0 face à la Guinée. Par conséquent, il termine premier de sa poule. Donc, SA est qualifié même, venu dans le huitième de finale. Normalement, on va soit ñu dajeeg ak poulu on va dire euh, poulu Côte d'Ivoire si gars yi mën nañu dajeeg Côte d'Ivoire donc match bi neexoon na gis ngeen gars yi nu mu kiiwee ambiance bi ñëpp a kii woon parce que jëlal ma xale yi jëlal ma jëlal ma ambiance bi tamit jëlal ma ambiance bi macha allah. Voilà, donc on se, dit, on se donne rendez-vous pour les huitièmes de finale, encore pour une nouvelle fanzone, toujours et encore sur BSTV. TV. Merci à vous.